اللهم أحسن وقوفنا بين يديك waa jërëjëf ngeen jëf comme ni mu leen koy waxee saa su ne maa ne saa su ñëwee rek nee na dafay tax lu tax ma ibbee noonu tey mbokk internet yi tey dañ fas yéene waxtaane thème bu am am solo muy wàllum kas mais bara dara damay bàyyi sama ñaari chroniqueurs yi ñu nuyoo xam naa si essence seen yaram tàngana ndax thème bi salaamaaleykum soxna mbenn nuyu naa la aleykum salaam sama càmmiñ moo nga xarit à moi seul di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan di nuyu tamit monsieur Samba bi ma bokkal plateau bi Samba Samba nuyu nañ la waaw maa ngi lay jaar di nuyu sama jigéen ji nga xam ne macha allah mhm. waaw <laughs> xaw na maag moom waaw xam naa ne yéen ñaan moom seen waxtaan moom du neex Euh, yow soxna Mbène balaa dara dañuy tàmbali soxna Mbène tey ñu ngi fas yéene waxtaanee wàllum caste. yow caste tu es pour wala nga contre. man contre laa def ñun bu ñu d'accordee si caste ba dinañ jar. Hmm. déjà yow famille bi ngay nekk rek boo xoolee jigéen ñi ñooy ëpp. xale yu góor ñi ci jot a nekk. mais pour dimbali la yow yaa tax maane de. déggoo ma de su ñëwee ne dafay ah. la ñuy wax maane ngi tey dafa teew. <laughs> pour pour wax la rek ñun loolu man boobu mënuma ci d'accord quoi. Mm-hmm. parce que ñun jigéen suñu sag mooy sëy. Mm-hmm. te buñ fi nekkee di wax ne kii la ñuy sëyee ou pas te teguñu ko ci diine rek. Mm-hmm. mooy nan lañ fee gën a yàgg. te te ku sëyul rek sëyantu ah. ñamax xeex yooyu comme ni ko Moussa waxee eh, sëñ Samb pour wala da nga contre wàllum kas man affaire bu may ñaawloo ñaawloo ñaawloo ñaawloo parce que en tant que jullit mhm. en tant que doomu adama nga ne da ngay bañ sa morom doomu aadama mhm. fii rek la amee Sénégal mhm. mais euh, seetlu woon leen yow sa sàmm si li nga wax ne da nga bañ sa moromu jullit affaire man pour man du caa gën a bañ ñoom affaire juddu lañ ko teg waaw mais bañ la bañ la parce que yow nit ki yow benn doomu aadama lu yow mhm. nga am nopp ma am nopp nga am mhm. bakkan ma am bakkan mhm. ngay lekk muy lekk ngay jul muy jul boo ko nee jul laa rek si nga wuyoo lépp waratoo bañ waroo xeeb lan mooy xeebal lislaam xam na xeebal xeebal mooy lan lan mooy gëwal lan mooy ñeeñu lan mooy lan loolu amul sens doomu aadama nit ki xol la ñuy xool xol mooy lépp waaw soxna Mbène yow su ma ñëwee si yow yow tey boo doon dund tey ak benn góor ba xëy suba mu bëgg la takk nga ñëw seen waa kër ne la tey ñu la may kii parce que kii lii la wala la la tey yow loolu non metti ma lay metti ma la may def mm-hmm. ndax xam nga famille dafa sacré quoi mm-hmm. bu bu bu sélection jotee rek mm-hmm. doo ko mën a off ndax kooku nga xam mais tamit bëgg écarter ki nga xamante ni tamit da koo bëgg bëgg leneen la loolu tamit day metti mais il faut ñu xoolaat affaire parce que ñu casque la ñu wax mais man constat bu ma ci def sax mooy xanaa mu nekk ko nga xamante ni dafa pauvre mais dañ ciy gis ñu nga xamante ni famille boo xamante ni dañ naan ñun suñu doom du sëy ak jiw mais gis nga kooku bu ñëwee yor alal di dul jeex loolu dañ koy croire dañuy croix caste. caste bi dañ koy croix. ndax ndax en général ñëpp xam nañ yorewuñ benn suuf. waaw ndax alal waaw su ma ñëwaatee sëñ Samba tey si lancé bi benn nekk tey yow tey boo doon dund ak jigéen tey dem ba seen kër ba kañaan ndax ñun loolu dañ ko dund ba taay. da ngay gis sa ay suñu lu ñuy waxtaan nii lu ñuy dund la. fii si dëkk bi ñëpp di koy gis da gis koo xamante ne da ñëw ne la moom kat moom da doon dund ak xale bu jigéen bu tëkk tey seen waa kër ne duñ ko ko may ndax yow t loolu bu la daloon ban réaction affaire boobu da nga koy naqal di ko ñaawlu mhm. yëkkatil parce que loolu noonu lu métti la mhm. nga bëgg nit te yàlla tax mu bëggal te yàlla tax mhm. ñu ne wu yee ñeeñalu mbaa gëwal du na may ana yàlla ana jurit bi ngay woote ana yow valeur doomu aadama bi nga war a jël teg ko sa morom boobu ana valeur boobu loolu fan lañ ko teg ba pare sàmm am na ñoo xam ne tey tey boo leen mayewul ñu dem ëmbalante la ñuy def de kii da ngay gis naa si benn sama benn xarit bu ma wax ne moom dafa doon dund ak xale bu jigéen bi mhm. mais xale bu jigéen bi ne ko non dañuy wax pour mu leer ah leer quoi la ñu jàngal ñun mhm. loolu la ñu Ousmane doon jàngal sànq récemment mu xale bu jigéen bi mais seen waa kër dañu dañ ma ko may parce man lii laa wala lële la ma ñoom tamit lële lañ ma bëgg ma tuddoo mhm. damay wax rek de manière générale Légui euh mu ne ma xalé bu jigéen si boppam mu retourné waat ñëw si moom nekk dama bëgg nga ëmbël ma ndax ñu mën ñu mayé. yow tay loolu bu la dalon est-ce que réaction bobu ngay def. non duma def réaction bobu parce que tamit nit ki dem yow nga soolaal sa borom. ak hmm. quel que soit alpha. Hmm. sëy yalla ko tak ci aras bi nga ñu sonal seen bop rek. Hmm. mais muy ñeeño bi muy géwél bu ku ne nekkul duma ko mayé sa doom. Da yalla tak ko ci aras da ngay sonn rek. loolu duma ko def parce que loolu damay sóoraale suñu borom. parce que tamit bëgg naa am soxna ba nga xamante ji dama koy teg ci yàlla suro si yàlla ak sunu Muhammad mhm. am ko fu lew dafa dafa am solo mhm. loolu moom bu ma ko def mais loolu tamit mhm. loolu su amee rek xamal na fa papa ji amna na benn tans tans responsable bu mag mag a tamit sunu borom boba dina ko no yara sa sa njaboot ak no parce que lii heure boobu non parent bi la parce que su nekkoon bëggante nan mu may len suñu bëggante nan leen mayee mais bu dee parents yi nak ñom non lañ sëyee non la mais mais c'est-à-dire que motax nit ki xal dafa wara mag nit ki su nekkee jullit nga ne man doomu jullit la tay su nekkee tey li ngay wuyu moom ngay li ngay woote moom ngay wuyu mm-hmm. war nga jomb yow sa moroom jir nga duma la ko may parce que nangam la mm-hmm. ah. su sànq doguma ko sax mhm. dafa wax sànq wax bu am solo muy mhm. nee na moom du ko def quoi mhm. mais buñ fàtte ne mbëggeel lañu wax xam nga ça fait mal nga xamante ni da ko bëgg ñu xëy un bon jour ne la duñ la ko may teguñu ko fenn soxna si kon yow buñ waa ji bu ñëwoon di la ñaan seen waa kër ne la ñoo ñett parce que nangam la kon yow da ngay dem kii non du ma ko joxe ci ah, mais du may yedd ki koy joxe xam nga dangay ngay toll benn stade bu nga xamante ne xam nga lan ngay demee tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons loolu am ci sëy yëpp ah. mm-hmm. loolu bari na ci de mm-hmm. ñàkk may nit ki ku mu bëgg mm-hmm. dañ lay dugal ci beneen mariage xoolal nga bokk fa di doxaani ki nga xamante ni moom nga nekkee woon am jëkkër am far bi mu neexu si dëkk bi te lii dafa bokk ci ci li ko ci li andi beneen affaire parce que lañ wax lan moo gën a leer tubaab bi na xonq cur weex kaw ba suuf bu dee race problème mu race la ñuy wax foofu la gën a sësi da ngay gis ku ne la du ma may sama doom géwël mbala du ma ko may tëgg mbala du ma ko may alpulaar xoolal tubaab bi jógee fële mu may ko bu dee race rek lañ mhm. kon kon loolu moo gën a race la ban mhm. bu may gën a déplorer mhm. man bok amul mais dégg mariage buñ parents yi d'accorduñ ci ñu ne ki nga ni ñaan si amul li diine wax ne nañ ci insister man mosuma ko dégg néew ma amul ah. mais mosuma dégg kuñ ne dañ ko refuser que amul yaa ngi dugg feneen loolu c'est malheureux waay. men soxna si yaa ngi dugg fu ama am am solo sàmb dégg nga dégg nga soxna benn ni réaction bi nga xamante ne moom la def mais damay wax ne moom li ma wax nii dafa am solo parce que man euh, du ma ne du ma wax lu nga xamante ne wóoruma lu ma wóor rek laay wax. parce que li mu wax nii dama si gis benn cas waa ji lañ ko dafa doon génn ak soxna si soxna si ñu may ko keneen yaa ngi dégg bu baax mais soxna si bi ñu koy may ko bëggul léegi ñu dem ba mu am ak waaj ji doom tey soxna si tey moo tourné waa tey di oh, ki nga xamante ne moo doon génn di ko envoyé ay photo am na un xam nga lu mu ko wax man maa ngi daf ma dañ ma wan audio bi xam nga lu mu ko wax daf ko ne envoyé ma sa photo ndax dama am envie gis sa photo dama gëj a gis sa photo sàmm loolu la nga si ban réaction nga si def. muy erreur rek la ñuy def. ndeysaan nit ki balaa nga koy may. Mhm. foog nga am constamment ngeen am benn kii waay ku góor ki. Mhm. bëgg yow nga bëgg. Mhm. parce que sa doom waroo ko may n'importe. am na góor ñu bëgg yomba de duñ fi nekk rek dañuy ñëw toog naan utal jabar. non du question bëgg lu yomb parce que tamit gis nga sawaay mm-hmm. ñu waxante dëgg mm-hmm. mbëggeel xorom ci la mm-hmm. xorom bu am solo am solo moo nekk ci sëy gis nga yaakaar naa nit ki su nekkoon na kooku may na ko ku mu bëgg ñu ngi koy pousser pour mu jaalu ñu waxante dëgg waaw mais léegi man dama ne la am góor ñoo xamante ne tey dañuy toog comme ça comme supposons tey ñu nekk à l'étranger oote rek nee na utal leen ma soxna te ki ñu leen di may ñoom ñuy yàlla day def ñoom ñaar duñ masuñu dund masuñu sax xamante yaakaaroon ne loolu tamit problème la si non mbirum yàlla la rek Mm-hmm. sëy moom mbirum comme lu ma la wax sànq da ma ne mbëggeel daf si am solo. mais waaw loo tax ma réaction mais sa tamit gisee mm-hmm. nit mm-hmm. moo tax mën a mbiru yàlla. yàlla fu mu nekk rek yërmande ba mbëggeel baa nga ca. yàlla bu demee tey ba bool laak soxna rek mun loo soxna rek allah kulli alin loolu mbëggeel cofeel dina ci am. parce que mbiru yàlla la moo tax mën a sëy ci mbiru yàlla la. dëgg kooku noonu moo ngi ci kaw. na pour ñu may ko soxna. yàlla mën na def jàmm gis soxna bëgg ko. safaan ba mën na cee am mais ça veut dire que tamit nit ki tamit soy dem ba tan tànnalal sa bop lu am solo la waaw wa sonu mbenn waaw yaangi bëggon andi réaction moy li nga wax sangi ci affaire envoyante photo bi man loolu sax oyof na mhm. lan mo gëna dangereux ah? ñu may la ko nga xamanteni boy def rapport ak mom sax sa xel day dem ci ki nga bëgg loolu déjà man sama jàng ko ci diine mais diine déjà loolu daf ko daf daf ko daf ko bay daf ko daax te te mhm. am fi ça mhm. existe bel et bien di sekk ak sa jëk sa xel di nekk ci ki nga bëgg benen bi ci des man j'ai pitié vraiment des parents Mm-hmm. man parfois dama len di yërëm ah. mm-hmm. parce que yow ki nga ne do ko may ki parce que nangam la hein ah. mm-hmm. du dula wax dara mu ko fa ba heure bu nammee def dara day dem ci copain bi ñu sekk bam naw do bañ ba fan la amati yalla buñ dem nak ba amati dom muy preuve à l'appui sonu ben nga gis ko xamantene mom moom ndeysaan bu da fay téye bopam ba yalla may ko borom kër amna ci parent bi poussé mo lay poussé à ce que nga dem do amati dignité bo waxee ñu ne la bu ñëkkon mag ñi mag ñi daaw ñu dem di bëgg ji dañ leen toog rek ñu maye leen kon yéen loolu ngeen war a def te jamono yaakaar naa ne dépassé na foofu du du mës a nekk benn parents yi il faut ñu delloo seen xel te xam ne yenn yëf ceddo yi sax nag dañ dañ koo dañ koo dox defatul waxatuma ñoom ñi nga xamante ni dañuy woote ne mm-hmm. ay jullit lañ mm-hmm. jullit Sénégal jullit la ñuy wax mais pratiquant moo fi amatul mbala bu mhm. amee bariwul ndax man dama gëm ni bu fekkee yow li ngay woote mu ngi si yow diine jooju mhm. loolu da ko rus sax di ngaan cest à mhm. dafa jekkul sax nit di koy dégg diw nangam la moo tax du ma ko may wax maa nag nga koy jëfee ba ñëpp xam ne loolu te te bu ñu fàttale ko bu baax mbokk internet yi seetaan ñu ngi leen di fàttale ne ba tey ñu seen émission Issa Mes Aînés tey ñu waxtaanee wàllum caste te sunu mbenn bu ñu du mu def euh, Abdoulaye Samb mu def mu euh, Mouhamed Samb kay du moins mu def réaction bu am solo mm-hmm. mais mais bu ñu seetloo ne tey euh, jamono nu muy doxee tey ak kas beex yooyu noonu dem na si ba ni nga ba si jiite sax gars yi ñu si def affaire kast jiite julli laa wax de kast ba tey dafa feeñ foofu si affaire jiite julli mm-hmm. dem na si ba tey ngay gis ni ñu ko waxtee mbootaay nga gis kenn jiite ñu ne yéen ne nangu diw nangam di leen jiite mm-hmm. moom nga xam ne nangam la comme nga xam ne loolu tey dafa bëri si dëgg te mënuñu tëj tey sama cameraman mu may wan ne juróomi simili moo ñu des tey lu ñu préparé si thème bi dafa bare bare bare bare bare ba nga xamante ne mooy loolu léegi nga gis tey tey mënuñu jeexal te demuñu si côté diine Abdoulaye kii Samba ak uh, Mbène mm-hmm. te buñ koy buñ koy delloo si alxuraan amul kenn koo xamante ne mu ngi def si kaw suuf mm-hmm. di nit ku jigeul si adama awa on se dise la vérité ah li fi nek moy lan mhm. yalla def nga juddou nek tuba mhm. ki juddou nek jola ki nek li ki ni mais ken gën am nga lu mo ci alcorane dafa ne inna akramakum indallahi atqakum nee ki gën si nit ñi moy ki gëna ragal yalla kon kay nit ki nga wara a moy ki la gëna ragal yalla ah benen mu ñuy wax ne wa atasimu bi khablillahi jamian waaye wala tafarraqu nee na ngeen japp si buumu yalla bi bu len taxaliko te affaire caste buñu ko rek taxaliko am kon yaakaaro ne tay est que tey jotul tey ñu demaat tegaat éducation islamique. c'est-à-dire comme ni ma la ko waxee sànq laa bëggoon laaj loolu. soxna Mbène parce que Samb instant yii kii mu ngi a doon wax am solo xam nga tamit euh, gis nga doomu aadama. Mm-hmm. soo nee jullit laa rek ko. Mm-hmm. di ko dox di ko waxee. te éducation bi am solo. Mm-hmm. gis nga doomu aadama ku ne. loo xam moom nga doon war nga ko mën a jàngalal sa doom. nan jël xale jiital leen. sol alxuraan seen dënn. yaakaar naa nit ki su demee ba arxaan euh, arxuraan toll yenn dimension doo tal kas doo tal gëw la kii doo tal kii gëw la kii ñeeño la mais man nag so mais Samb doguma la de mais ñi jàng alxuraan ñooy doxalee loolu de ñi koy def duñ duñ ay yéefar duñ dara ay jullit piir ñooy dox affaire kast man dund naa ko man mii di wax ak yéen def yo loolu man dund naa ko man man dund naa ko man dund naa ko bëgg naa benn xale bu jigéen te yàlla rek a tax ah yaayam ne duñ ma ko may damay man ne xale bu jigéen da ngay sono sa bopp rek mais kenn Souleymane mii du la takk ko dund man aca bismillah te koo ku jël alxuraan ne mm. ah te si jàkk ji dégg man wax man naayam man dama ne man koo xam ne alxuraan sol na nekk na ci dënnam mu doon di ko doxa di ko waxe wallaahi kooku jomb na wax jooju parce que wax ju ñaaw a ñaaw a ñaaw mooy loolu mm-hmm. doomu aadama ni yow nga yëkkati ko ne ko kii duma ma la ko may parce que nangam nga mm-hmm. kooku yaa ngi koy rey mm-hmm. te fer bu garaaw la nag. te tey boo loolu moo jël sa jam ko nit. boo boo amoon alal yaa fi yaa fi gën soxna Mbène. comme ni ma la ko waxee rek. mais profité la dafa joxe sa mot de la fin ndax waxtu bi moo ñu xaw a mais doyalu ñu ah da ngeen ñu war may da ngeen ñu war may. parce que lii li doyul ah suñu suñu suñu xel tout ay di wax ak nit naan ngi ko xam ci ak awa. ci ak awa ngeen kon bu loolu bu ko ko xeebal quoi. ndax andi gis xeeb ko lu nit jiite nga ne war ko def ndax race bii la bokk. pour parents yi parents yi nga mariage ci wax Mm-hmm. ngir yàlla nañ jàppale seen bopp jàppale seen bopp wala coow li mhm. ba tukulóor yi wax bu garaaw la wax ju ñaaw dañ mhm. dañ ko mën nañ nañ ko baat te mhm. xale yi ñu jàppale leen wax dëgg yàlla ku bëgg sëy nañ ko jàppale mu sëy dañu teg waxu kàtt ndeysaan ndeysaan son yow Serigne Samb looy lan ngay tàggatoo waaw maa lay jaajëfal di rafetlu lool soxla mbenn wax wax na lu am ama am solo ak lu mënta demee nañ jàpp ne Sénégal gi ñoo ko moom ak lu mënta demee nga xam ñu ñoo bokk ndey ak yenn doomu aadama war a xeeb moromam pour lan mu koy xeeb ak fu mu ko teg. ak lan la mën a mel doomu aadama melu ko. est-ce que loolu doy waar la. Mm-hmm. naayam boobu nag na dem jàngiwaat. dem <laughs> de. xam nga mu ñuy dégg xam nga. na dem jàngiwaat mu toll na naayam nga naan yàlla neen yoon tamit nee na. Ah, ah ngay jëfe loolu mm-hmm. ñaaw na. boobu mm-hmm. nañ ko dindi teg ko fële. waaw xam nga jàngam des. jërë ngeen fa mais balaa ñu jeexal damay wax bu am solo. si thème Euh, parce que mënuñu wax te waxuñu diine ñun ñëpp qu'on se dise la vérité mm-hmm. Mm-hmm. Ah, comme lañ wax chaque jour du caagi ne nit ki bu ne yàlla nee na yonent bi nee na rek oustaz la wala kii mm-hmm. dafa fekk ne loo xamante mbenn da war a waxee man dama ko war a waxee sàmm da war a waxee keneen ak keneen islam jeunesse lañ def lañ wax parce que thème bi ñun jeunesse bi ñun ñëpp daf ñu sonal ah sonal bu baax a baax a baax te kon comme yàlla nee na ki gën si ñi mooy ki gën ragal yàlla kon nañu jéem euh, koo xamante ne sa yaay si kàddu gi tëdd na si lalu or wala tëdd si lalu jamaa amul mm-hmm. fenn ñun ñëpp ñoo bokk fu ñuy fu ñuy jóge te ñoo bokk fu ñuy dellu mm-hmm. kon ñu ñëpp benn lañ innamal mu'minuuna ixwa la yàlla wax kon in uridu illa al islah man istata assalaamu aleykum wa rahmatullah <laughs> allahumma ahsin wuqufana bayna yadayk